billahi min bismillahi irahmaan irahim bismillahi irahmaan irahim xam naa rek di sàkku addiyee dégloo nanu teewlu kaddu yi ndax ay kaddu dañ koy déglu fooy nekk na nga toog te may tuuti ak kaddu may tuuti ak déglu uh, sëñ bi daaneel kaddoom incha allah. waa jërëjëf ñu ngi sant yàlla bu baax. di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. di jaajëfal sëriñ Touba. di nuyu ki nga xam ni mooy kilifa jataay bi. di soxna Maymunatu Mbakke bintu Cheikh Abdullahi Ahad Mbakke. ndax dañ koo bëgg sax yi mu am ñum fi bàyyi ndax xam nañ toogaay bu yàgg ak yitteel gu ko li yitteel moo tax waaye xam nañ nit am na toogaay yoo xam ni kenn na mënatu ko moo tax ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi fi teew ñëpp di ci teg soxna maam say Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne ni ma ko waxee soxna si léegi nee naa ko moom ku yàgg ak ñun la ca njenn ju njëkk ja mën naa ko waxee noonu dañuy macha allah di root ak taxaneeg ak yu baree bari lépp fa la ko fekk moo tax ñu ni ko nag kaay yow nga jël teraanga ji ñu jaarale ko sëñ lu mu dem sëñ Abdou Lahad bala noo wax dara soxna si addee ji nga ñu jox moom loxo bi ko sunu loxo laal nii rek ñu ngi koy jéggulu ndax ñun ñun dara du jóge ci yéen di ñëw ci ñun xalaatuñ ko xalaatuñ ko mukk kon ñu koy jéegu lu baax ñu ngi ñaan sëñ seexu naa nga ñëw doxalaat ñu ko jox ñu ko ndax sëñ Isaa daan wax sax bu duggaa bu musaanaan di ànd ak taalibe yi dugg kër sëñ Tubaa duñ dugg waxumaa nag ñuy jël lu jóge ci yow nan nan soxna si loolu danga koy dimbulee ah donc waaye lii moom daa laal sama loxo danga ma koy dimbulee rek ngir sëñ Tuubaa wallaahi danga ñu koy dimbulee waaw lii nii am am lii ëpp un million la ñoo ko jégguloo soxna si ñun sama am danoo dimbuli sëñ Tuubaa danoo dimbuli ñun sëñ Tuubaa danoo dimbali dimbali biir ak gubbiti ñun bëgguñu dara xamuñu dara waruñu dara sëñ Tuubaa rek sëñ bi rek sëñ Tuubaa rek ci lañ tàmbalee ci lañ yem dara yokkuwu ci parce que danoo dimbali soxna si nit ñi li ñuy séen li ne ci biir dafa gën te ñun suñ biir suñ tubaa ci ne moo ñu dimbali lii lépp lu neex la waaye bu doon ak moom duñ ci man dara ndax soxna si mat na ci seede ñun soxna suñ tuddee kër gi di soxna awaloo sëñ Bàkke Madina na woon ko jenne kër gi mu fa tabaxoon ñaari néeg la soxna si xam na ci dara ñoo sunu waajur wu jigéen ñoo ci nekkoon kenn raxunu sëñ Tuubaa ñu fa fekk man maa fekk génne ma kenn fekkuma fa kenn kenn du kenn sëñ Tuubaa la sëñ soxna si xam na ci dara mën na ko sedde damay wax léeg-léeg ma ni sama buntu kër day wax dëgg yàlla mbooloo dina fa jaar di fa dugg waaye dëkkoon naa njenne man la maam ji yaay ji bàyyi ba teel a dem aw ma ni jaay tubaa la suñ tubaa la du kenn fi ma jaar yëpp li ma dox lépp keneen laa war na doon parce que dund naa ci réew yoo xam ni mënoon na maa nekk leneen loo xam ne du ma dellusi ci sëriñ bi Côte d'Ivoire Cameroun Afrique du Sud Mali Éthiopie Congo Pointe-Noire lënd mu naa tawte naa lu ne daj naa ko mais sëñ bee ma téye sëñ bi rek kon sama suba sama ngoon sama lépp sëñ Tuubaa la dara du ko génn dara li des moom doo xalaatuma ko xalaatuma ko xalaatuma ko parce que ki xam démbam moo mën a wax démbam waaw réew mi nit ñi mën nañ gis bii rek mais li ma wax loolu soxna si mën na ko seede du kenn teel a ñàkk bàyyi ci ñetti at xamoo ko te amoo nijaay ju la mën a taxaw nga yor waajur jigéen muy soxna Aminata Lo te mi ngi dund ñu joxoon ko sëñ baara jenn mu jógee fa ñu jox ko sëñ moor jenn bokk ci sëñ siréloo man du ma doon bàkku su ma neexee di bàkku kenn musuma dégg may bàkku du ma tudd sax ay waajur sëñ moor jenn du ma ko tudd fenn kenn musta dégg ma di ko tudd sëñ tubaa rek lu tax lu tax nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy bàyyi yor naa ñoo xam ni ñooma mag fuuf soxna si man sama waajur ca 1800 yi la mag la koo xam ne ba ñuy liggéey jumaay tubaa yaa jumaay njéeréem yaa ngi taxaw ca mag ña nga bokk mag sëñ baara jenn ay mag lañ kon cent yi ci laa bokk ci jamono jii ci jataay bi néewaa na nga gis fi koo xam ni waajuram am na doom ji dund am téeméeri at ak lu tegal sëñ moor Jenn am na doom joo xam ne mi ngi dund waxtu wi may wax ak yow am téeméeri at ak lu tegal kon man doomi mag laa dencu mag laa doomi mag laa soxna si xam na li may wax sëñ moor Jenn doomam mi ngi dund mi ngi ci téeméeri at ak nangam kon loolu bu ma dee def yi may def damaa wét ci kër wét ci néeg wét ci àll xam fi ma jaar ak li ma waroon a doon ak li ma war a nekk sëñ bi ni ma cas génne ma li ci gën a yéeme sëñ Mor Jenn moom may tudd sama ma màggalu Tuubaa boo ñëwee sama kër ña ëpp di yor ca waañ wa ku ci sa baay koo xam ne sa baay sëñ Mor a nekkoon sa sëriñu baay amul kon man sëñ bee ma dimbali fajaa laa dem am naa fa lu mu néew néew ñaar téeméer yoo xam ni ku ma ci woo nga wuy si ma ñii mosuñoo doon i murit ñii sëñ Mor Dieng mosul nekk seen sëriñ ñii sëriñ bee ma ber foofa wutal ma loolu loo xam ni xëccoowuma ko kenn soxlu ma fi kenn ku ñëw ci màggal Tuubaa gi danga ko gis loolu sëñ Tuubaa ma ko defal man sëñ Tuubaa daf maa génne ci fépp foo xam ni war nañ faa xëccoo loolu li mu jur mooy am naa ay mag am naa ay mag di soxna si xam na li may wax ndax nit ñi dañuy baaxoo eh, du ma sàmba lar damay liggéeyal sëñ tubaa déedéet duma ma sàmba alar damay liggéeyal sëñ tubaa te su may liggéeyal sëñ tubaa na gën a baaxe na gën a rafete na gën a kawe laa koy defee la noonu maa ngi la koy seedeel ndax lan fi ma sëñ tubaa dugal ndax lan fi ma sëñ tubaa génne tey ci sëñ tubaa jooju dëkk bi ñuy wax daaru jenn di daaru paam mooy dëkk bi sëñ saa jenn njëkk am ci kaw suuf ginnaaw bi mu jógee ci yéen rafaate la ko sëñ Mor jenn tëri ba fa nekk bu dul woon ak man waxuma dina fa am waaye dina yeex soxna si maa ko fa def te jaaraguma fi xanaa kon sëñ Tuubaa dimbali na ma te maa fa gën a tuuti maa fa gën a tuuti kon duma sàmba alaar courant baa nga fa ndox maa nga fa te jaaraguma fa kon nekkuma fii rek bàyyi leen ci ginnaaw waaye dama gis loo xam ne sama xol wéet nekkoon foo xam ne mënoon na maa dugg ci lu ne ndax Côte d'Ivoire day dëkk bu doy waar ku fa dund ay at ci ñi ma xam ñi ma xam ñi xam ni xam nañ Côte d'Ivoire oto ba yooyu ma ma ko waaye Côte am fa liberté mucc rek ñëw jokkaajowoo ya fay dal ak yooyu yëpp nga mucc ak ya fay xew sëñ Tuubaa dimbali la ba jaaroo ca loola boo ñëwee war nga ko sant soxna lii ak cant la yow nag Mbàkke li tax ñu tuddale lii mën naa ni sax toogaay bi wax naa ko nee naa fukki at mën naa mën naa am egg na ci waaye da ngay jàmbaar te man dama bëgg jàmbaar waaw man jàmbaar dama koo bëgg jàmbaar mooy koo xam ni li nga taxawal ñu liir ko fii waxuma sax la fay jariñu ci ay doomi aadama ci xam-xam waaye employé rek soxna si ñaata nit a fay liggéeye ñaata nit ñooy dem ca wet ga di jaay di fa dunde kon yow wax dëgg yàlla li ñu waxoon léegi patriote yow mii la koo xam ne li nga créé ay junni junni ay nit yi nit ñi ña ngi fay liggéey complexe maanaam sa foofu noonu bokk na ci département bi wala ci ci région bii nii wala ci dëkk bi damay wax li la fa ëpp ci ay el parce que 2500 wala 3000 fu ñuy xëy loolu du ay loolu du ay caaxaan mbàkke loolu dañ laa war a wane war koo ànd ak yow ñun concurrence suñ la dañ lay roy jéemu ñoo xam école ba la fay dox ak bii ñun dañ lay roy dañ laa bëgg moo tax ma woo sëñ Bas Guèye mi sëñ Basiiru mi ma dénk école bi mu ñëw ma ne ko soxna Maye ngi nii jël leen ko muy seen référence ngeen am ay résultat parce que résultat moo am solo tabax nañu jàmbaar lañu wut nañ ay biis ak lépp waaye lay tax nag ñu mën a góorgóorlu mooy résultat te ki am résultat mi ngi nii muy soxna May moo tax ñu indi ko seen kanam pour ngeen man koo xool pour mu nekk seen modèle ci li ngeen di liggéey ngeen góorgóorlu bu baax a baax ndax lii ma macha allah bu fekkonte ne rek koom-koom lañ ci bëgg mu gaaw soxna si fii 5000 mètres carrés la liñ fa investir bi ñu koy liggéey xam nañ li mu xam nañ ni mu gaawee xam nañ am naa xarit bu ne fii ku tudd sëñ Maxtaar Mbuub macha allah day liggéey ci mbirum xaalis ak homme la xam naa gaawoon na ma jël ko ni ko rek wutal ma ci ab terrain Nord Foire wala Mamel ah. xam naa loolu xam naa secret yi air plus neuf laa koy def tëdd sama kër yàlla dogal di ko luyee muy dugg sama compte ma di ko lekk jàpp sama njàmbur waaye loolu sëriñ bi dafa maa defal lu ma lu ma jomb moo tax ma fas yéene bokk ci ñi koy liggéeyal bokk ci ñi nga xam ne ñaanam gi ma tekki sama loxo sëñ bi la de du ñun mënuñu ci dara mooy li a la wax koo xam ni li a la ko waxee fa nga daan tëdd la nga daan lekk fa nga daan nekk roq sa nga nekkoon maanaam macha allah soxna si xam na li may wax xam na li may wax daam ñoo xam ne ñu yóbbu suñu kër ci njenne gi gënoon a ñàkk bokk ci gàttal Mbàkke mooy kër a soxna su baax daal moo fa dëkkoon ak doomam akub sëtam may jànga ji ci jumaa ji ak kër sëñ abibu mën naa ni sax léeg dañ may tooñ ni ma xiif falaa ko tàmmi parce que men eggoon nañ ci buñ ñu añee du ñu reer waaye sëñ tubaa ñëw waaw ah, sëñ tubaa ñëw ba koo dégg léegi ah bëgg naa bokk ak soxna ami doomam ji de sëñ tubaa tax du kenn nag du kenn du kenn du kenn sëñ tubaa la du kenn du kenn sëñ tubaa la waaw ah, moo tax sëñ tubaa moomu nag ginnaaw yàlla xam nañ li nga xamee ni yàlla dogal na ci liggéeyam xam-xam da caa bokk moo tax ñu fas yéenee góorgóorlu ci jàpp ci lii ñu ngi lay seedal ni yéene nañ 3000 mètres carrés moo des fële ñu ngi ceeg projet yoo xam ne ñaanal ñu ci mbàkke bëgg nañ ñu ci fi jànge métier du ñu ci yem suñ daara yi nekk fii nii man damay chaque jour su ma jógee ci li fàtte naa ko fàtte naa jumaa ja fàtte naa daara ja fàtte naa lii leneen laa bëgg a song loo xam ne dañ naan du ko man dama koy man ndax suñ tubaa la bëgg maa ngi xalaat sax dama naan soxna si xam nañ ko daara yi ne fi dañu am problème mu oto yi mang maanaam seen foos yi parce que dama koy jànkoteel xam naa li ci xew maa ngi ci xalaat ñoo xam ni dinaa fa yéene ba wut ay oto yoo xam dana wàññi loolu maa ngi ci maa ngi ciy waxtaan nag li may waxtaan nag mooy du ku koy def dëkkul Sénégal de man suñ tubaab damaa sànni damaa sànni Sayir sànni ma Côte d'Ivoire sànni ma ca roq ya ñu man li may def di ma ci jàppale te sama sant sax mënuñu xam nga ko kenn mënu koo yàq Côte d'Ivoire ka ëpp di ma jox xaalis soxna si maxtaar jéen jéen lay wax mënul jéen xamul xamul xamul sax fu mu dëkk sëñ tubaab nu boole waaw loolu nag boo moo tax néew te yàq Sénégal mën ngaa yàq waaye foofu moom néew yàq bala ngaa yàq ba yegg foofu ndax xamul xamul xamul jenn ci sax mënu ko loolu nag Mbàkke li tax ma jox damay sant sant nag bu nu roowul ndamu sant goo man damay sant dafa am ku ñox sëñ Fallu Galas Lo dama koy faral di woo su ma woowee ma ne ko man damaa bokkul fi gars yi ne ak fi ne ñii dañuy wut xaalis man dama am xaalis di sant sant du sant damay sant sëñ si la wax na ko léegi du ay at ay ndàngam nekkuma foofu man sama gis-gis weesu na foofu weesu na foofu loolu nag waajur wii ma tudde école bi soxna si mën naa la ci wax soxna si xam na ko ñu soxna awaloo nitu ja nit ku jaamu yàlla la woon lii du asaar kerew gëm gëm sëñ Tuubaa bi sëñ Abdou Lahad jógee dafa dem ca jumaa ja bokk ca sikkar ca fa la jële woon tànkam boobu ba ni mu fi génne àdduna day soox ab taalibe la woon ab murit saadix la woon tuddewuñu ko ndax day suñu maam déedéet waaye day woon jàmbaar ju ñu wuuf di def lu baax ñu di ko gis ñu xam ne ab la woon kon ñi ngi sant ñëpp di sant sëriñ daara yi di sant ñi nga xam ne jëf nañ ci liggéey bi yëpp tañ ànd ko ak ñoom jàmbaar lañ soxna si nanga ñu ñaanal ndax ànd nañoo ak sëriñ daara yoo xam ne équipe bu dëgër lañ boo xam ne ñu baax ndax xam nga at mu ne nga génne lu mat fukk ak ñaar ci ñu mokkal mokkal gu rafet ñuy naafi la même boo amoon moyen yi yàlla dogal man nag ba tey da xaasa jooju sëñ Tuubaa damaa defal lool dafa maa booleeg sëriñ daara yoo xam ne maa ngi ñoom benn lañ nga xam ne daanaka benn lañ benn lañ am munoo munoo xàmmee suñ complicité ndax liggéeyal sëñ Tuubaa école bi yàggagul ngeen gën a góorgóorlu yéen ba mel ni daara ja mel ni soxna may waaye ñi fi nekk dal nañ ci ñoom seenum xel bu baax loolaat boole noog soxna yu baax yoo xam ni ndax àddina dañ naan lépp bu matee rek loo wut yomb ko kon nag soxna si soxna yee toog jàmbaar lañ yi soxna ami Mbàkke ak soxna muslimatu Mbàkke soxna ami mooy ndeyu daara ji du du du sëqat du wax liñ maanaam doomi soxna maamati mu sëñ fàllu la yow waajuram nga xam na ni man bu defoon dara damay toog wax ko waaye ci genn wet sax moo ma waaw ci genn wet man naa nangu moom ma gën waxuma gën ci sant yu gën ci jëf lu baax waaw ndax dama koy wax léeg-léeg ma ne ko yow maanaam bu ma bu ma bu ma naajee julli fajar seen ko ci kuur bi muy julli nga xam ne ba ma ko fi ba ma ko indee sama kër ba nëga ni maanaam man naa seede ci suñ borom ni ëpp na fukki at mais musuma gis mu faat waxtu te waxtu wa gën a jafe nag lay julli muy fajar dama naan kii boo jar na sax ba ma yéegee ci kaw laa a sant waaye su ma séenee ci frontière bi xaw a bëgg a na si daa dem moo may soññ ci mbaax ci yiw ci nangu digal mu am rakkam di soxna matu Mbàkke xam nga sëñ Tuubaa ma booleeg lool man sëñ Tuubaa dama koo génnul lii ñu fi def ci école bi bi ñu doog a tijji li fi indi lépp moo ko fi indi tey ji tiraanga yi ñuy jox xale yi moo ko moo ko jële di doomi soxna sëñ Lamin mu sëñ Murtadaa kon man génn ma sëñ Tuubaa waaw kaw ah, kon man maa war a sant sëñ waaw kon nag dama koy sant di ko gërëm di ko safoo di ko yëkkati di ko wane te kenn du ci man dara waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu Eh, xam naa rek dañuy daal di tàmbali liggéey bi animateur bu fekkee am nga micro nga jox xale yi te doo mel ni xale yaa ngi di génn si di tarkala di di way way am solo ñun ndaw yi réew mi tun ba war nanu waajal suñu bopp ndax ñun ñooy nekk ndaw yi ëllëg dox leen micro yi incha allah ñu ànd ñoom Serigne Saliou mën ngaa ñëw ci tànt bi incha allah bisimilah. ngeen tolloon ñii ak lañu doon taskala lépp lu taxaw xam-xam moo ko taxawal waaye lépp lu daanu ñàkk xam-xam moo ko daane al ilmu yarfau baytan la imaada lahu wal jahlu yahdimu baytal xisti wa sarafi nee na xam-xam day fekk fa dara nekkut mu def fa dara réer nag moom fu mu dugg tabarakallah euh, bekkoor la fay indi waaye tumbaranke la fay indi euh, Sëñ Tuubaa sax newoon na waxlam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira addina koo ci raw dalaa raw ci am njàng dafa laa raw ci diine mu waxaat ni wax na bi an na man aba taalluma waxta si waay say làqi nadama xam-xam a ngi noonu tabarakallah euh, lépp lu jëm kanam xam-xam moo ko jëme kanam waaye lépp lu jëm ginnaaw xam-xam moo ko ñàkk xam moo ko jëlee moo ko jëme ginnaaw te si mataar jenn ak ñu mu àndal ñoo ngi liggéey ci fexe ba euh, samp ndaw yoo xam ne bu ëllëgee dañuy xam-xammee ba mën a ba mën a jub jubal insha allah aoudu billahi min ashaytaani bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi leen di ci turu Serigne Makhtar Diène di leen nuyu ci turu ñi bokkal liggéey bi muy waa administration di wa di corps euh, professoral bi jàngalekat yi di leen dalal ci fii ci euh, complexe franco scolaire kër maam Awa di leen tatagal di leen sant ci wuyus bi ndax woote yomb na wante euh, euh, wuyus yi yombul te mel na ni yéen ñëpp ñëw ngeen ci bis bile muy bis bu rëy nag ci ñun ndax comme ni ñu koy jotee waxee ci tàmbali gi dañuy sargal suñuy doom suñuy ndonga suñuy élèves maanaam tàmbalee ko ci xale yi jàng fële ca daara ja ba mokkal alxuraan ñu war leen euh, sargal war leen a bu si jógee ñu war a récompenser aussi élèves yi nekk fii ci complexe bi maanaam xale yi nekk ci sixième ba seconde jur seen classe ñooñee lañu war a sargal maa ngi nag euh, jël kàddu gi ci turu ñooñu ñëpp leen deloon nuyu leen doole sant ci wuy si bi li may euh, tënk ci école bi am ci complexe bi ndax li ñu ko gisee nii école bi mi ngi ubbi ren jile ci mois d' octobre ñu ngi ci mois de juillet donc muy neuf mois yoo xam ni la liggéey bi euh, tàmbali li ba ak si fii ñu am ci nekk ay ñu ci ràññeeku ci élèves yi ci classe yi maanaam classe bu nekk dañoo bëgg a euh, sargal neexal ñaar ba ñett ñi jiitu bu demee ca école daara ja sargal képp koo xam ne moom da ngaa mokkal alxuraan ci ren jile kon daal ci gàttal loolu mooy euh, euh, bis bi loo waral moo tax ñu war ñu war leen ci bis bile li leen nag xamal ni moom école bii ren la tàmbali mois d'octobre comme ni ko waxee sànq muy un cycle complet commencé CI maanaam dugg ren yi dem ba CM2 pour euh, l'enseignement élémentaire jóge fa ñëw enseignement moyen sixième ba troisième jóge fa dem enseignement secondaire muy seconde ba terminal ñu am fi aussi maanaam série yëpp yu ñu jàngalee am nañu ko file muy série L lu mel ni l L prime L2 am na fi incha allah dana fi am suy ay série S série S1 dana fi am incha allah ak série S2 kon loolu moo ci gàttal li ñu war a ubbee euh, incha allah bu bu monsieur Aga ak jàmm ci mois d'octobre kon képp am sa doom mu bëgg nga bëgg mu jàng incha allah bu ñëwee fii dana fekk ñu ko jàngal ci gën ngaa rafetu anam. bu dee wàllu euh, élémentaire bi am nañu aussi euh, majalis kon sa doom mokkal bëgg mu continuer jàngam ci wàllu français bu ñëwee fii dana am ñu ko jàngal kon daal ci gàttal loolu mooy école bi kon ñu ngi liggéey ñun ñëpp leen sant. korom ñi yabaay seeni kër dem sa daara ja waxtu téere Yàlla bi lii de doy na ndam waxtu téere Yàlla bi lii de doy na ndam aha jógu leen ñu sargal këram ñi ya bàyyi seeni kër dem sa daara lii de doy na ndam aha wattu téere yàlla lii de doy na ndam kër lii de doy na ndam wattu téere Yàlla bi lii de doy na ndam jugu leen ñu sargal gaay alquran ñoom ñi Yàlla buuru tan dem ta ci ñuy jiital ci loolu mi soxna mbiri mboob way juróom bu góor mi ngi tudd sëriñ Babacar Mboob way juróom bu góor mi way juróom bu jigéen mi ngi tudd soxna Mariama Diop moom moom ci xale yi mokkal ci la bokk kon ñuy jox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 alif laam soxna Mbeeri Boob yal na yàlla taxawu la yal na yàlla barkeel alxuraan yal na ci xam-xam bu barkeel topp ci barkeel alxuraan karim ñu ngi ñaan ay mbokkam ñu ñëw taxawoo moom fii photo photo moom teral ko te jox ko shahaadaam dem toog képp kuy mbokkam rek na jege si ñëw photo moom teral ko tamit boole ci waaw nañ ko teral dëgg yàlla macha allah jàmbaar la bu ko defee ñu jox ko mu daal di dem toog incha allah. Eh, barakallah xam naa kon eh, dana am solo lool ñu ñëw ana ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam eh, nanu ñëw waaye taxawal taxawal taxawal fii yow soxna Mbéri yow dana laa wala sargal waaye dana laa war a tatagal tarakal la ndax yow li nga mokkal danga ko mokkalaaleel mboolem jullit ndax ku xam na ni alxuraan das ko war di mokkal ndax loolu moo koy sàmm waaye su amee ñu ko mokkal nag ñoom ñoo yóbbaale mbooleem koo xam ne mokkaloo maa koy ñoom mam moor ak ñoom moodu nit ñi mokkalut soxna mbiri mi moo nu yóbbaale micro bi yokk ko tuuti bu defee rek tabarakal la euh, ngeen ko ngeen teral ko euh, sargal ko ndax bu njëkkoon boo mokkal nekk am kaang tabarakal la euh, say waajur dañ lay defal teraanga ju am solo waaw waaw na koy baataree Ah, ndax loolu mënta ñàkk ci koo mokkal alquran ah, tabarakalla yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla taxaw ko ba mu dem ba koy jàngale ndax moom daa bokk ci ñi gën ci nit ñi ndax xayrukum man taallama alqurana wa allamahu tabarakalla te moom mokkal na alquran tabarakalla yaa jooy mat naa jooy waaw ndax tabarakalla ko sa xol sedd nga jooy ndax ah, ñoom seen i teraanga tabarakalla lu mu lu mu toll doyut ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax ndax lii dee tax moom ak yi moroomam ñu ci sabab bu baax a baax a baax xale moom la mu xam rek mooy ku ko encadré euh, ku ko taxawu ku ko euh, neexal tabarakal la rek nga di am li nga bëgg ci moom ndax ñoom bu ëllëgee ñooy nekk mag yi ëllëg euh, soxna mbiri yàlla ngay mag te nekk magum na ngay maam tey barkeel tey juri kaañ àddina ngay xëy tabarakal la ndax ñoom ku ci mokkal rek bu yemal xiyaamee yàkk malaaka yu tedd ya yeneen bokk fee nekk humma al kiraamil barara mu nekk lu am solo xam naa Euh, xam naa ñëw tuuti rek ci waaye nag moom ba mu fàttali ne lu jig njàkk sëñ Matar Dieng mooy njàkk. ak euh, sëñ daara yi nga xam ni euh, tabarakallah ñoo ànd ak dongo yi. jërëjëf koy jàngale dana am solo lool xam naa kon ñaari njaal ci beneen dong ndax programme bi dañoo am benn timing boo xam ne ci ni jaar te waxtu wi duñu ko may. sëñ soxna Buri yàlla ngay mag te njëriñ la ko lislaam. jërëjëf kon ñu àggale. mu ñëw. barkeelu ci alxuraan euh, kon barakala kon nu woo Baye Sam Lo euh, Baye Sam euh, Baye Sam Lo mooy ñëw moom kon su ko defee rek xam naa kon soxna Buri mën nga ñëw yëg ate bisimilah yëgal jërë ngeen jëf Baye Sam Buri waaw maa ci yooyu maa ci yooyu incha allah rek ñu benn benn ko rek incha allah dina baax soxna si waaw waaw ma kii nag tawar kàlla lim def daa rëy nag waaw waaw waaw ko bàyyi mu kii rek du ko yàq soxna soxna Ndeye yëwal. waaw waaw léegi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. yi. ah, ah waaw yëgal waaw parce que ñëwoon nga yëg. waaw ah, jëf ñëwoon nga yëg. Ah, kado yëpp mën nañ koo téye ba mu ba mu wàcc allah ngeen jox ko. xam naa ne kado yi moom ko ko rek waaw <laughs> barakallah am na solo mu jàll ci beneen donga euh, ndax yëf yi mel ne day soog a tàmbali euh, su ko defee rek euh, ñu daal di dellu seen i place yàlla barkeel nu ànd ak Baye Sam Baye Sam Lo Baye Sam Lo ñëw na waaw kay moom mi tabarakallah ci dong yi mokkal ci la bokk kon oustaz mën nga ànd ak moom kon boobu ba léegi nag sëñ Ibrahima Yeddaali Niass moo toog noonu ànd ak sëñ Ali Ali Dieng ak Cheikh Bousso ñoom ñett ñooy saytu wàllum njàng mi Euh, kon bisimilah rahmaani rahim bisimilah. kon ñu jàll ci beneen xale muy Cheikh Jabel Gueye. Baye waaw. kon ñu jàll ci Baye Cham Lo moom ci xale yi nga xam ne ñoo mokkal téere borom bi tabaaraka wa taala ci la bokk euh, bàyyi Cham Lo moom waaye juróom wu góor mi ngi tudd Baye Cham Lo waaye juróom wu jigéen mi ngi tuddu Soxna Ami Mbàkke Oustaz Cheikh Abdul Qadir Lo moo ko yoroon doon ko jàngal kon ñu jox Cheikh Mouhamadin El Yadali mu laaj ko laaj incha allah jërëjëf ustaaz Cheikh Basham ibda min qawlihi taala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا المسكين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير تكبير تكبير ما شاء الله Baye Cham ñi ngi ñaan nga wàcc ñëw taxaw fii suñ kanam wàccal ñëw taxaw fii suñ kanam ñi ngi ay mbokkam ñu ñëw joxal ñu ko ay neexalam te teralal ñu ko bàyyi incha am loo loo ndam macha allah ah. yal na yàlla barkeel alxuraan ji. macha allah xam-xam topp ci. macha allah Baye Sam ci njàng mu am solo mii nga jàng wax dëgg yàlla lii moom ku fi teew ku nekk sedd na sa xol ndax jëf ju màgg la ko xool at yi mu am mën a njàng njàng mu leer mu wér ci maxaar yeeg lépp mu respecté ko wax dëgg yàlla loolu lu lu lu am solo la lu rëy la. kon Baye Sam ñi ngi lay sant bu baax di sant say waajur ñoom ñi la taxawu ba lii mën a nekk waaye tamit di sant sëriñ daara yi nga xam ne ñoom doon jàngal eh, barakallah xam naa kon ay mbokkam bu fekkee ni man naa kii rek ndax eh, day mel ni programme bi duñu xaar ñu ñëw sargal eh, Baye Sam ndax wax naa ko léegi mat naa sargal ah, tabarkalla ndax moom mokkalam gii tabakala tuyaabaam ni da koo bokk ak ñu baree baree baree baree baree ba du moom dong fa xaysuma yubasmilu sabiyu fi maqaadin yaktubuhu aliyu wa walideyi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaxnamu kon tabakala kon mokkalam gi mu mokkal du moom rek la jëriñ waaye mbooleem ay waajuram waaye ki ko doon jàngal ñoom ñëpp ñoo bokk tuyaaba ji bu ëllëgee yowmal qiyaam kon tabakala ñëw leen ngeen ko ngeen sargal ko eh, bàyyi saam mën nga ñëw yàlla ngay mag te nekk magam lislaam yàlla yàlla barkeel la yàlla yàlla taxawu la kon daal kon sëñ eh, Seex nga jàll ci ko si topp bismillah ah, bu soo ah, eh, kon bismillah waaw jàll ci ñetteelu xale bi muy soxna waalo Mbàkke soxna waalo Mbàkke moom mooy woote ko moom waaye juróomu góor mi ngi tudd Serigne Mouhamadan Mbacke waaye juróomu ah? waaye juróomu góor mi ngi tudd Serigne Mouhamadan Mbacke waaye juróomu jigéen mi ngi tudd Soxna Sala Sall moom bu Bousso moo ko doon jàngal ci daara ji kon di jox Mouhamadan Yadaali mu ñëw ci laaj incha allah bi taala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 وهل أتاك حديث موسى إذ رأى fukki. sadaqallaahul allah macha soxna Waalo Mbàkke yal na yàlla barkeel la te taxawu la nu yàlla barkeel sam njàng barke alxuraanu karim ñëwal taxaw nii suñ kanam. macha allah ñu ay mbokkam ñu ñëw sargal ko. tatagal ko euh, neexal ko tamit boole ci. kon mbokki soxna Waalo nañ ñëw sargal ko tatagal ko. neexal ko macha allah loolu dana ci am solo lool macha allah jërëjëf. Euh, jërëjëf macha allah soxna Waalo ci njàng mu am solo mi kon ñu ngi woo ay mbokkam ñu ñëw sargal ko ku mat a sargal la ku mat a sargal la ndax yàlla def na ci moom alquran loolu nag du lu du lu ndaw. ñu ngi woo ay bokkam ñu fekk si ko fii teral ko te njëkkante ak waxtu wi ndax ci jamonoy nawet la ñu ne waaw ñi ngi ñi ngi kontaan lool ci euh, soxna Walu Mbàkke ci njàng mu am solo mi nga xam ne def na ko fi waaw yaay mat naa sargal mat naa sargal lool ndax amul lu gën a rëy lii ci kaw suuf mokkal alxuraan amul lu ko gën a rëy sëriñ bi wax na lu ne ci alxuraan kon nag ki nga xam ne tey da nga taxu sa doom ba mokkal alxuraan yëgal ne def nga liggéey bu am solo bokkuma ci ñi nga xam ne ñi ngi liggéeyal sëriñ bi ci xam-xam ndax liggéeyal sëriñ ci xam-xam tamit fexe ba sa doom bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàng ba bu ñu tuddee xam-xam tudd leen loolu lu am solo la te yéen a ngi ci kon yéen waajur yi yéen tamit ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ci seen taxawaay di euh, remercier également la présence de tous les parents d'élèves parce que vraiment vous êtes répondu présent euh, ndax xam ngeen ne ndax lan dina yomb lool ci man dañoo nekk benn bopp benn say. ñi ngi leen di ñaan ak dégloo. ak àndandoo ngir liggéeyal sëriñ bi. ak dégloo liggéeyal sëriñ bi monsieur suñ ko waxee. ak li fi jot a xew lépp ak li fi jot a jaar dina neex a dégg ndax lu tax dina neex a dégg mooy sëriñ Maxtaar mi ne. liggéeyal sëriñ Touba lay def ci li mu taxawal fii ñun du ñu yàlla baaxee ci kattanu yàlla ak ndimbalu sëriñ bi ñu di fi yëngu kon ñun dañuy jàpp ne ñu ngi ci liggéeyal sëriñ bi ndaxte liggéeyal sëriñ bi weesuwul boroom dëkk bi moom mi nga xam ne xam-xam fi mu ko teg kenn dootu ko nattable mu am ci biir Touba barab bu mel nii bu mucc ayib te kenn ku nekk xam na lan mooy investissement bi sëriñ bi def fii néew na école yooyu dem li ngay fekk fii nga fekk ko fa kon bu amee lu mel nii ñun ñu ñëw di ci yëngutu te suñu mébét nekk di liggéeyal sëriñ bi kon dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Touba dinay am beneen taxawaay ndaxte ñun jàngalekat yi nekk fii dañoo amal njukkal sëriñ maxtar ginnaaw bu ñu yëkkatee ay kàddu njukkal jëmale ko ci Seexul Xadim maanaam néew na nga gis koo xam ne wax na ko ci biir waxam léegi moo tax ma ne sama wax dina mën a yomb néew na koo xam ne da lay liggéeyloo sa fay du tàrde lépp loo xam ne matériel la bu war a ànd ak sa liggéey mu taxaw ci di la ko jox ba mu mot wëlbatiku di jël ci wër sa gëm di la jox ku mel noonu yaakaar naa ne daf laa gën a sas daf laa gën a ñaax te in ngir indi firnde ci loolu may wax ne mi ngi bokk ak ñum wërsëgam damay bañ a xam nga ne weeru koor bëri na ci lu ay jumtuwaay yu ñu soxla te ci kàttanam ci dooleem nga woo koo xam ne danga nga koy liggéeyloo di ko fay yëkkati ko ay teraanga kenn ku nekk nga teg ko ci loxoom ay teraanga yu mucc ayib nag yu nit ñi soxla loolu yaakaar naa ku la ko defal damay bañ a egg ci tudd ko ndax sama mbokk sekkeen yi summi ma laay bañ waaye lu am solo te loolu bi nga ko ko waxee maanaam ni fam ko teg ak nam ko waxee moo lay wan ne kii de li mu doon wax sànq yàggul dara ne liggéeyal Serigne Touba moo ko tax a jóg te barab bii bu ko taxawalee xam-xam moo ko ñor nekkul ne da ciy wutub xaalis loolu lu nit mën a comprendre la lu nit mën a nangu la te ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey fii personnel bi muy personnel administratif bi muy Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne mooy directeuru école bi muy le gestionnaire Mboup muy le directeur de l'école primaire di Badiane muy ba Kulim Dioum sëñ Fallou Mbacké mi nga xam ne moom it am na solo lool di maillon bu am solo ci dispositif bi fi nekk boo ko xoolee ni ñu àndandoo di liggéeyandoo day wane ne rek lii ku ci deful jàngat ci mbirum baatin dese ngaa am tuuti xel ndax lii yëfi Serigne Touba la te mbirum Serigne Touba moom ku ne xam ne day dem nga jàpp ci day dem. nga bañ cee jàpp day dem kon nag ñun nga xam ne yàlla dañoo baaxe ci ndimbalu Serigne Touba ñu nekk di ci jàpp am nañu farlu gu wér gu wér goo xam ne nii Serigne bi bëgg nañ koo seedeel na fa muy yegg mën na sax romb njortam danañ def lu ñu mën lu ñu mënul daañu ko def ngir ñu dégg école bi fa ñu ko war a dégg incha allah te maanaam day neex ma wax lu tax parce que man dama nekk très d'union parce que JEPCAM bi nga xam ne nii soxna May moom la ñu tuddee bés bi dama fay yëgu maanaam dama fay liggéey kon ni may liggéeyee fii di wax ne sëriñ bi joxoñ bi mu joxoñ foofu dafa nekk mbirum baatin parce que olof mooy faral di wax ne ñu bokk teen faw ñuy jaxasoo ay goj te JEPCAM kenn ku nekk xam na ne fa mu egg ci résultat farlu ak liggéey moo tax mu egg fa kon sëriñ bi bu taxawee taxawelee mel nii waxal ne deful concurrence kon kooku lu baax moo ko tax a jóg kon man mi nga xam ne damay yëngu foofu xam dispositif ya fa am organisation ba fa am résultat bu mënti am ci farlu la ak liggéey yëngatu ak organisation ku xam diggante Serigne Bassirou Gueye miy diriger école bi ak Baye Mbow mi nga xam ne mooy directeur des études bu JEPCAM waroo am jaaxle ci xam ne lii kanam la jëm incha allah parce que ñooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ak rigueur dañuy liggéey ak méthode te loolu ñun dañ ciy sant parce que loolu ci lañ ñu tàggat ci lañ ñu nàmpatal ba tax na lépp loo dégg rek xamal ne muy réussite xamal ne fa mu jaar moo ko waral maanaam duma ko wax ci tubaab mais dama wax nit ku nekk la nga jëmbat rek moom ngay góob te ñii excellence bi ñu am di nga xam ne foo mënti toll ci àdduna mën nga dégg turu JEPCAM wala nga dégg turu lycée Mbacke ba nga xam ne man mi professeur laa foofu di fa jóge di yëngu ci yii da ngay xam ne liggéey rek moo am solo lépp lu dul liggéey ay caaxaan la te Serigne Makhtar mi ci loolu la ñu woo boole ko di jël dooleem di ci def kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ne ko lu mel nii moom wax dëgg yàlla lu am solo la lu loo xam ne nii euh, dafay doxal école te école sëriñ bi nga xam ne moo moom dëkk bi dafa am fu mu ko teg maanaam bu ñu waxee école mooy xam-xam kon nag pour bañ a guddal damay gàttal wax ji foofu di yëkkati rek di wax ne xeltu boobu nañ ko def lu waral mu jël bis bi tuddee ko soxna may euh, soxna may muy JEPCAM man ma nekk ci trade union loolu am na leneen lu mu war a wundu lan moo waral aussi moom mu wax ci baatam ngeen di dégg ne utum xaalis am na neneen nu mu ko gënoon a yombee mu def lii ku ne xam na ne ku def investissement bi xaarul dërëm ma ngay xaar fayuk sëriñ Touba te jàpp naa ne mi ngi koy euh, euh, tàmbalee am kàddu yi ñu yëkkati nag jëmale ko ci parents yéen mooy ku leen defal lu mel nii amoo leen lu dul yëkkati ay doom indi ko ci école bi te xam ne dinañ nekk ci loxo yu mucc ayib professeur yi fi nekk mooy professeur yu mucc ayib ñi gën a xarañ ci département bi ñooy agir JEPCAM ñooy agir lycée de Mbacké ñooy agir seen fu ngeen dégg na ñu ngi am ay résultats yu baax même professeurs yi fa nekk ñooy jàngale fii kon seen xel ñu ngi leen di ñaan ngeen dalal ko te indi seen gone yi ñu jàng si ci école bi loolu dina am solo jërëjëf kon maa ngi eh, jéggalu di yemale kàddu yi foofu eh, tabarakalla monsieur Guèye eh, kàddu yi am na solo lool yàlla na yàlla barkeel tabarakal yàlla yàlla mottali ni mu ko waxee rek noonu la ndax moom mën na ci seere ndax ma euh, ngay jàngale lycée de Mbacké di jàngale SEPCAM di jàngale ci complexe bi tafakalla kon mën naa euh, xam naa kon oustaz ñu daal di joxe euh, ñu tàmbalee ci classe de CI. comme ni ko waxee classe de CI waaw. dañuy wéyal programme bi. pour récompenser les meilleurs élèves pour de chaque classe on va appeler Baye Nar Diop Maam Cheikh Anta. Mam Cheikh Anta Gueye pour la classe de CI. Euh, Barakala kon Mam Cheikh Anta Mam Cheikh Anta Gueye Mam Cheikh Anta Gueye ak Baye Naar Diop. ak ak Baye Naar Diop. mooy xale yi nga xam ni ñoo raw ci classe de CIA. Euh, barakalla ngeen tàccul ma xale yi bu baax a baax a baax a baax ñoom ñaar ku nekk am nga moyenne neuf virgule quatre-vingt-neuf euh, tabarkalla mu nekk moyenne bu am solo bu kawe lool. Euh, ci ko xam am njàng ak moyen tabarkàlla nañ ñëw ñu ko ñu ngi ñu ngi woo sëñ Mamour Mbacke mu ñëw euh, joxal ñu kado yi kon sëñ Mamour Mbacke muy ñëw tabarkàlla joxal nu sunu ñaari jàmbaar yi seen i neexal muy Baye Naar Diop ak maam Cheikh euh, classe de CIB Ablaye Lo Abi Dieye classe de CIB de CIB ñu ànd ak Ablaye Lo ak CP Madialis maam Mariam Jabaay mhm. Maxa Fall mën nañ ñëw classe de CP CP classique ah, Fatou Kiné Ndiaye mhm. Cheikh mhm. classe de C1 Khady Diop Khadim Ndiaye waaw classe de C2 Ndey Kan boo fee dañ taxaw nii rek Ibrahima Gueye Soxna Khady Mbacke classe de CM1 Mame Diarra Dieng Serigne Fallou Ndiaye classe de CM2 bi mooy Ndey Kondo Faye classe de CM2 Ndey Koddu Faye ak Abdoulaye Amar mhm. classe de CM2 Majalis ñaar la Majalis ñaar la Abdoulahat Amar Mouhamadou Fadal Diop kon ñu taxaw foofu rek euh, sëñ Mame Mor kon ba léegi ñu daal di ñëw ànd ak kaa taxaw euh, euh, moo leen jox récompense yi moo ban classe la CIB CIB CIA CIB Ablaye Lo ak ak Abi Dieye mhm. euh, CICP Majalis euh, CICP Majalis madame Gueye madame Gueye man ngaa ñëw madame Gueye CICP Majalis ñu ànd ak euh, mam mam Mariam Jabaay ak Maxa ba léegi sëñ Mamor moo leen di jox seen i neexal sëñ Mamor Mbacke mi jiite Touba ca kanam moo leen di jox seen neexal waxtaanoo yi mhm. sëriñ Maam Moon Mbàkke moo jiite Touba ca kanam waaye euh, C1 Khady Diop euh, Khadim Ndiaye euh, C1 Khady Diop ak Khadim Ndiaye CIB Ablaye Lo ak Abi Dieye CIB Ablaye Lo Abi Dieye ana Ablaye Lo acca yéen mën ngeen dem ngeen toog kun jox rek sa cadeau mën nga dem toog mën nga jaare ne eh, acca bismillah waaye eh, CP ana Fatou Kiné Ndiaye jël na waaw ah, si CP Majalis Mam Jaara Mam Marème Jabaay ak Maxa Fall c'est un joxol Khady ak Khadim Ndiaye ana Khady Diop waaw ma ngay dem euh, euh, Khady Diop ak Khadim Ndiaye tabarakallah euh, ana Khadim Ndiaye waaw C2 joxol Ndeye Kane ana Ndeye Kane Ndeye Kane joxol Ndeye Kane c ak Khady tabarakallah xale yaa nga noonu ñuy neexal tabarakallah ñu mat a euh, neexal lanu ndax euh, classe ba ñuy jàngee euh, tabarakallah dañ fa am ay moyens yu am solo. c'est c'est un Khady Diop ak Khadim Ndiaye. waaw ñu ñëw ci CD bi Ndeye Kane. C2 Ndeye Kane. Ndeye Kane waaw léegi ñu dem ci C1 C2 Majalis. foofu ak Soxna Khady Mbacké. waaw. ñoom ñaar la neexal. Mhm. kon xooloon nu Ibrahima Gueye ak. Euh, soxna Khady Mbacke ñoom ñaar ñoo jër raw gàddu ko ci C1 c ñu dem ci sem 1 euh, classique euh, doxal kii nu waaw xaral sim Maam Jaara Dieng ak Serigne Fallou Ndiaye Maam Jaara Dieng ak Serigne Fallou Ndiaye classe de CM1 Fatou Kiné Ndiaye CM2 bi euh, ana Ndeye Codou Faye ñëw na euh, ah CM2 euh, Ndeye Codou Faye Ndeye Codou Faye ah, mooy Abdoulahat Amar ak Mouhamadou Fadal Diop CM2 classique bi mooy Ndeye Codou Faye waaye CM2 Majalis mooy Euh, Abdoulahat Amar ak euh, Mouhamadou Fadal Diop. classe de sixième. sixième ñu ànd ak euh, Dame Dieng. Dame Dieng ak Soxna Diop. classe de cinquième. Cheikh Bamba Dieng. Hmm? classe de cinquième Cheikh Bamba Dieng. Rokhaya Ndiaye. classe de seconde Soxna Ndiaye. waaye CP ci euh, jeune en herbe bi CP ak c de c mm. ñoom it am na fi ay neexal. classe de sixième Dame Dieng. Maam Soxna Diop. classe de cinquième Cheikh Bamba jenn classe de quatrième Roqoya Ndiaye. classe de seconde Soxna Ndiaye. élèves yi mooy ñi nga xam ne ñoo jël première ak deuxième ci seeni classe ata comme ñu continuer des na ah, benn kon mooy léegi euh, les vainqueurs CP ci euh, général darbu mhm. mooy vainqueur bi ak vaincu bi vaincu bi classe ak C1 C2 majalis nañ ñëw ñoom it ñu jox leen seen i neexal euh, ñu doon général ñu jëloon final bi mel ni CP mooy les deux finalistes mhm. final bi CP moo jëloon waaye nag ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lan moo tax ñuy neexal ñoom ñaari équipe yëpp Eh, barakallah eh, sëñ Mamour ba léegi mooy woy di tabarkalla neexal xale yi te mat na ko. Dame Dieng eh, Dame Dieng ñoom jël sa récompense. nañ ñëw waa CP nañ waa CP rek ana waa CP yéen la. parce que kon ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo jël. voilà la classe de CP. tabarkalla ay jàmbaar lañu. l'équipe championne ah, du complexe Kër Mame Aw Lo. am na solo ñoom ñoo jëloon géné année bi ñoo jëloon final bi. waaye nag nañ ñëw Majalis. ñoom it nañ fi ab neexal nañ ñëw ñoom jël seen. wàllu ci waa C1 ñoom tamit ay jàmbaar lan C1 C2 Dame Dieng mooy soo ko jël neexalam noonu mhm. bismillah ah, jërëjëf Oustaz su ko defee balaa ñuy tàmbali am na ressortissants yi nga xam ne ñoo génne woon ci daara ji dañoo waajal ab ne bu am solo ci sëriñ sëriñ Muxtaar ñooñ mën nañoo léegi jox ko incha allah ñu démarrer liggéey bi yi nga xam ne ñoo génne ci daara ji am kado bu ñu waajalale sëriñ Muxtaar bu mënee baral jéego yi ndax waxtu wi xooj nañu lool te am nañ lu ñu dese te bëgg daggaat ko incha allah bismillah kon ñu jàll ci xale yi nga xam ne ñoo desoon ci ñi mokkal léegi ki ci topp mooy Serigne Jabel Gaye ku ñu wax Jabel léegi Jabel tur way juróom bu góor mi ngi tudd sëriñ Fallou Gaye way juróom bu jigéen mi ngi tudd Soxna Khady Diop ku ñu wax Abdoul Ahad Silla moo ko yoroon ci daara ci jërëjëf Serigne Jabel ibda min qawlihi tabaraka wa taala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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا ذلكم خير لكم عند بأرئكم فتاب عليكم إن حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله na yàlla barkeel la barkeel sam njàng bisimilah mën ngaa wàcc ñi ñëw suñ kanam ñu woo ay way juróom ñu ñëw tatagal ko te teeral ko macha allah ñu profité ak waxtu yi rek ñu woo xaadimal Moustapha Jenn eh, ibnu sëriñ Maxtaar Jenn eh, ak soxna maam Mbeye Lo sëriñ Abdul Qadir Lo moo ko doon jàngal bismillah yi daal nga seetal ñu ko jërëjëf signalé Cheikh Khadim Moustapha ginnaaw bi nga toogee ba noppi ibda min qawlihi tabaraka wa taala يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى macha allah macha allah xaadima Moustapha Diène yàlla na barkeel barkeel sam jàng ñu ngi woo ay way juróom nag ñu ñëw <coughs> euh, teral ko waay ñëw teral ko xaadimal Moustapha Diène macha allah sëñ euh, ñi ngi woo sëriñ Fatxu Mbàkke sëriñ Fatxu Mbàkke mu ñëw joxoñu ko shahaadaam sëriñ Fatou Mbacke fekkee mi ngi ci jataay bi ñu ngi koy woo mu ñëw joxal ñu ko shahada euh, ñu profité ak waxtu bi rek ñu ngi woo soxna maam Faati Diagne euh, ibnu sëriñ Moussa Diagne ak soxna maam Faati Diop soxna maam Jaara Gajaga moo ko doon jàngal macha allah jërëjëf siñaale soxna Mam Faati ibda'i min qawlihi ta'ala ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بسم الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه تقي يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حسبك صدق الله العظيم jërëjëf macha allah soxna maam Faati Jaañ yal yàlla barkeel la barkeel alxuraan jërëjëf ñu ngi lay wax nga ñëw wàcc nii suñ kanam wàccal ñi suñ kanam ñu ngi woo ay way juróom ñu ñëw teral ko ñu ngi juróom ñëw teral ko ñu njëkkante waxtu wi rek bisimilah ñu ngi woo soxna maam Mati Ñang soxna maam mati ñang ibnu sëriñ maas ñang ak soxna sukkay jaañ sëriñ cheikh busoloo moo ko doon jàngal bisimilah idaar waaw suñu àlle ñu bàyyi xel tuuti rek soxna yi nga xam ne ñoo jàngewoon ci daara ji dañoo bëgg a jox sëñ Maxtaar ab neexal su ko defee loolu su mënee jël benn minute rek mu doy ñu mën a àggale incha allah waaw ngeen baral tuuti ñu mën a yeggal incha allah lu am solo ngeen di def nag mooy yéen a na seen xel jógal ci sëriñ bi ndax fi nga sàkkoo xam-xam ba yàlla dogal nga génn fa di bàyyi xel sab sëriñ daara wala ki nga xam ne moo la taxaw wala ci barabam nga jaar lu am solo la incha allah su ko defee yéen la ñuy nekk rek bu ngeen fotowoo man ñoo may kanam gi incha allah. bu ma nee bar tuuti rek macha allah nataal bi am na su solo rafet na lool jërëjëf man ngeen a man ngeen dellu seen place man ngeen dellu bu ngeen noppee. Euh, soxna ami cuun soxna ami cuun daara yi maam Cheikh Ibrahima Fall Touba Seexaw ga ñoo dox njox kado boobu Serigne Makhtar Diène mooy kado boobu noonu ngeen gis macha allah yal na yàlla barkeel jox nga la ngay da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 واتقوا فلكم أجر عظيم wallaahu bimaa ta'maluuna xabiir laqad sami'a allaahu qawla allaziina qaaluu qawla allaziina qaaluu inna allaaha faqiir ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق ونقول ونقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله soxna maam Mati Ñang macha allah yal na yàlla yaa barkeel wàcceel fii ñëw suñ kanam ñu woo ñu jox la say neexal ñu nga woo soxna maam Jaara Gajaga Euh, sa dongo bi dalaa bëgg a jox kado euh, bu fekkee yaa ngi dégg nga ñëw fii mu jox la ko bisimilah euh, ñu woo Bamba Ndaw Bamba Ndaw ibnu Sëriñ Aale Ndaw ak soxna Faati Màngaan Sëriñ Abdul Ahad jàngal bisimilah suñuy daal yi nga xoolal ñu ko jërëjëf sëñ Aale Sëriñ Bamba ibda min qawlihi taala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 ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله Allahul azim. takbir takbir takbir. Allahu akbar macha allah barakallahu fiik. macha allah macha allah Serigne Bamba Ndaw njàng mi neex na lool teg na ci yoon tubaarkàlla la na yàlla barkeel la ñu ngi woo ay mbokkam ñu ñëw fii ci kanamam teral ko. waaw mat naa teral lool wallaay mat naa teral lool euh, ginnaaw bu loolu jàllee euh, sëriñ Abdul Ahad Lo bu fekkee jege na mu ñëw moom moo war a jàllale kàddu daara ji moo war a jàllale kàddu daara ji bu fekkee mu ñuy dégg na jege si incha allahu taala ndax guddi na Euh, barakallah xam naa rek kon sëñ Moustapha bu wàccee rek euh, soxna May aan mi ñu woowoon moom it na ñëw euh, moom mu wax ci kàddu ko parents d'élèves yi ginnaaw bu sëñ Moustapha daanele bismillah ana ana waaj wax moo ko matal micro boobu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 yéen mbokki jullit ñi noo ngi leen nuyu di leen ziare di leen baalu te di leen baalu di ñaan yàlla suñu borom mu bool nu defalu ak njéggal di leen sant bu baax ci wuyu gi nga xam ne wuyu si ngeen ko daarul quraanul karim ak wuyu gi nga xam ne wuyu si ngeen ko complexe scolaire Kër Ma Awa di leen sant ci loolu bu baax a baax Abdul Ahad Lo taxaw di wax ak yéen mooy ki nga xam ne moom lan saytuloo liggéeyu daaray daarul quraanul karim mu ànd kooku mbokki taalibe yoo xam ne kenn ku ne ci ñoom suñ tegoon loola ci ay loxoom mu mën koo doxal doxal liin wu mucc ayib may jàllale ay kàddu yoo xam ne la ca jiitu tudd naa ko léegi muy ak cant la ca topp mooy ak soññee akuk fàttale fàttale gi mooy li nga xam ne moo ñu boole lu mat a xam la muy alxuraanul karim alxuraan moomu di téere boo xam ne mooy génn nit ci tuskare yóbbu ko ci texe alxuraan jooju du ci yére boo xam ne mooy defar nit di ko jubbanti téere boobu nag moo ñu boole defe naa kon li ñu boole tedd na loolu ñu boole nag war naa tax kenn ku nekk ci ñun xool boole googu naka la koy sàmmee naka la koy dëgëralalee ba mu doon lu rafet lu mucc ayib muy suñ digganteeg yéen way jur yi ndax defe naa yéen way jur yi yaakaar ji ngeen amoon ci daarul quraanul karim jàpp naa tasul jàpp naa yaakaar ji nga xam ne amoon ngeen ko ci daarul quraanul karim jàpp naa yaakaar jooju tasul ndax wax dëgg yàlla gone yi ñoo ngi jàng alxuraan di ko mokkal mokkali nu mucc ay bu set ku paree ci alxuraan jiit dinañ la jox Cheikh Moustapha Lo bi nga xam ne moo yor bi mu jàngal la sa xam-xamu diine ba lu ne nga xam lu ca yàlla wax ci biir loolu nga boole kook école bi ñu lay jàngal xeeti fànni xam-xam yoo xam ne dana tax nga dégg sa jamono waaye dana tax nga dégg naka ngay dundee lislaam ci jamono ji ñu toll ñett yooyu yépp Sëriñ Maxtaar boole ko defandoo ko ci seen doom kon jàpp naa yaakaar yi ngeen amoon tasut alxuraan nag moom du lu yomb way jur yi ngeen xam ne alxuraan dafa boole ñett alxuraan bari na alxuraan yombut alxuraan féccikuwut ba ne lool bari na ndax toll na ci téeméeri saar ak ñeent bari na ci tey ngir séddaleku na ci ay isib lu toll ci juróom-benn fukk yombut feccikuwut mooy loo romb tey jii jàng ko boo doxaatee ab biir fekkaat ko ci sa kanam lu mel noonu nag gone bu koy jàng day aajoo nga may ko ak dal dalal am xelam seddal ab xolam loolu li tax ma koy wax mooy ngeen xam ne liggéeyun ñun ci ay bant liggéeyul ci ay machine waaye ci doomu aadama la ñu liggéey doomu aadama nag ni ko suñ borom programme nim liggéeyee jëmm ji ak nim liggéeyee xel mi da na lëkkale ci genn anam mooy doomu aadama buy door a juddu jëmm ji du àtteen dara lu jëmm ji def dañ ko ci gindi defal ko ko mu man ko mu door ko mën a def bu bëggee dox da ngay jàpp ci loxo yi bu bëggee toog yaa koy teg foo xam ne day mën a wéeru ba keroog muy mën a dox ak boppam bu demee ba mën a dox mën a dox gi du gaaw ku ne xam ne ne xale buy door a mën a dox ay jéegoom du sori boo ko bëggee wommat te yàkkamte sax na ngay mujj def mooy fokk ci noonu lay jóge dem ba mën a dox dox bu gaaw gisoo nii suñ borom tëggee jëmmi doomu aadama ci zahir nit ki noonu la tëggee xel mi xel mi bii dóor a jug de aajoo ku ko womat lu muy def kookaa ko koy defal ba keroog xel mi di mën a dox ak boppam première étape bi xel mi di mën a dox ak boppam it par ndànk-ndànk lay mën a dox ci biir ndànk-ndànk boobu boo ko bëggee gaawal da nga jur ay jafe-jafe yoo xam ne ëllëgi xale bi muy aveniru xale bi lépp dana yàqu ndax xel ma nga yàq te xelum suñu borom dafa am nu ko xelum euh, nit dafa am nu ko suñu borom bindee kon ngeen xam ne léegi léeg li ngay dégg ci ay kàddu nit ñëw ne la sama doom njàng mi dafay yeex alxuraan noonu la mel duñ sonal xale bi profité ko ba gaañ ko seen daara yi leen di jàngal bu fekkoon ne yenn ngeen ci biir daara ji di xëy ak ñoom di gont ak ñoom ba gis temps bi ñuy def ci xale yi ba gis yitte ji ñuy def ci xale yi ba gis farlu gi ñuy wane ci xale yi ba gis temps yi nga xam ne ay temps yu waroon a mën a noppalu la ñu def ko ci xale yi bu ngeen ci tegoon seen bët du ngeen jàmbat mukk ne xale sàngam dafay yeex te c'est normal sax alxuraan xale du ko jàng di yeex bu ca gaaw amee tawfiix suñu borom la alxuraan ni mu toll képp ku koy jàng sax daa waroon a yeex suñu borom a ci tàbbal tawfiix rek kon loolu ngeen xam ba nga xam ne moo ca topp mooy sëñ Maxtaar Jeen mii yéen way jur ameel ngeen ko cant goo xam ne lu ngeen ca farlu farlu farlu booyal kon la leen ca war mooy fexe ba góor-góor ca cant googu ba mu yëg ndax wax dëgg yàlla bu fekkee yéen seen xol sedd na ci moom war ngeen a fexeer ba xolam sedd ci yéen pour seddal xolum si maxtaar ci yéen nag lenn képp la mooy condition yi daare ji sarti daare ji règlement yi daare ji ñu respecté ko ndax li ngeen bañ bañ bañ seeni doom tawat sëriñ bee leen ko gën a bañ li ngeen ni bañ bañ bañ seen doom tilim sëriñ bee leen ko gën a bañ te waxuma ko ngir ba fa teew. diine di sëriñ Makhtar Diène. waaye li ngeen ni bëgg seen i doom seen i jàng baax te gaaw moo gën a bëgg. ndax léeg-léeg dina ma woo ay appel yu yàgg yoo xam ne moo xam ci biir dëkk bi la ne moo xam ca Ndakaaru ja di wax ak man ci loo xam ne lu aju ci wàllum setub daara ji la léeg-léeg muy waxtaan ak man ne ma doomi diw sàngam bi fu mu toll. yooyu bu fekkoon ne xale yi ñorewu ko noonu bu génnee fii nekk Dakar pare na ca waaye heure bu fi nekkutit moom appel yaa ngi fi muy gëstu gannaaw ba nag mbooleem li ngeen bëgg ci seeni doom moo leen gën a bëgg te li ko war ci seeni doom moo nga ca ni ngeen góorgóor ba li leen war ci daara ji ngeen nekk ca yi nga xam ne daara ji da koy tere tere nañ fi ba tey waajur wuy may doomam xaalis daara ji dañuy tere xale buñ jox xaalis mu ko fiy dugal tere gën koy tere téewul am na ñoo xam ne ñoo ngi jaar ci suuf du ko def te xam naa ci dara ndax dama ci nangu koy xaalis ba ca toppaat mooy tere nañ ba tàyyi ñami suukar yi ñu jox xale yi ndax lu bare bari ci xale yi seen xeeti tawat yi suukar su bari képp la seen bëñ yi bënn suukar si ñu jëfandikoo képp la te loolu sëñ bi dem day dem ba koy seetlu di ma ko wax ma ne ko moo ne de wax nañ ko way jur yi de day dem ba seetlu boppam ne loolu jur na jafe mu ma koy yeggee ma koy xamal wax naa ko way jur kon day ma ne la ma wax kon saafara wut ba ca toppaat mooy Serigne Makhtar daari ji bi mu ko taxawalee ci foofu lay tëjee yéene jim ci amoon mooy taxawal daara joo xam ne xale bu fay jàngi kenn du la gënum njàng kenn du la gën condition yoo nekk ba pare doo fay dara bi muy taxawal daara ji loolu la naaloon waaye bi mu si diisoog Serigne Khadim Niang mi nga xam ne ab liggéeyam ci alxuraan ñëpp xam ak yar ci diine moom am mbégte ak tawféex di bari na ñoo xam ne balaa ñoo indi seenu fay la 15 ba la la am na benn partie muy première partie bi deuxième partie bi mooy la 21 ba la 28 diggante yooyu ci 15000 francs loolu wax dëgg yàlla erreur la yoo xam ne jàpp naa daal war a si si gën a defaat it loolu la damaa waxtaan ak sëñ bi man ma ne gannaaw bu liggéey bi loolu samay loxo lay nekk te daara ji boo xoolee li muy financé ci xaalis yéen ñëpp bu ngeen fayoon bu fekkee 2 million la dunduk daara ji 3 millions loolu xam naa si dara li may wax waxuma ko ci tandat li may wax man maa ko yor yéen ñëpp bu ngeen fayoon muy 2 millions pour dunduk daara ji ak pay personnel bi lépp 3 millions la ci xayma léegi neen la ca des sëñ bee koy coobare ndax fi dee seen pay gi daanaka rek mën ngaa wax ne dunduk daara ji dugg seen pay gii ci lañ war a pay seen daara yi nga xam ne ñoo toog di jàngal seen i xale seen daara bu ci nekk daanaka am lu ko war ci këram seen daara bu ci ne du ma ne daanaka seen daara bu ci ne am lu ko war ci këram danga gis benn seen daara boo xam dañu dem ba le 5 le 6 le 7 léeg-léeg soxna bi joxe gut mu ñëw ci man ne ma sëñ bi soxna si ñëwagut a ah. te man mi mu laaj ba xam ndax soxna si ñëwagut xam naa xilli na xaalis bi demagut ci soxna mi ndax lu fa dem ma yëg nga xam kon fay gi lu koy tardé ci seen daara yi nekkul ne ci soxnaa mi la waaye ci li yéex a ñëw la léegi mën nañu dem ba le 6 la 7 aw 400000 nekk nga war a fay personnel boo xam ne ci jàngalekat ya muraaxib ya toggukat ya fóotkat ya léttkat ya wifi ba ñu nangam ba nangam ba nangam ba mu tardé ba heure boobu léegi nag man damaa wax ak sëñ bi ma ne ko loolu gannaaw ba samay loxo la ne bu jotaay bii jàllee fay gi léegi tàbbal leen ko ci samay loxo. bu siraay bi jàllee dañ ci jël ay normes yu mat sëkk yu leer nañ yoo xam ne moom daanaka yàlla na yàlla jéggal waaye bënuñ ca dara bënuñ ca dara ndax wax dëgg yàlla baaxul wax dëgg yàlla suñ daara ni ñu soññee ci yéen ngeen leen tardel gënu bu lay jàllee dina am benn yëgle bu ma yëgle boo xam ne dina dem ci jur yëpp joxe benn daat boo xam ne foofu lañ limité fay gi képp koo xam ne la 15 nga daan fay wala le 10 jëm kaw wala la 21. kooku dinañ wax ak ay conditions yu leer yoo xam ne danga fexe ba nga fay gi di gën a teel ba lu mu tardé tardé du romb def sàngam loolu mooy gën a doxal liggéey bi maa ngi leen jéggalu bu baax di sant seen teewaay di rafetlu seen teewaay di leen ci sant di leen ci gërëm di jéggalu kàddu yi bu fekkee am na loo xam ne nammel wërta mel noona dafa di nag moom ñaar da daje mooy liggéey bi samay loxo lañ ko teg li may wax lépp dara ump mu ci maanaam li dafa leer ci sama bopp ba nga xam ne mooy tax bu ma bu ma maanaam li wax dafa leer ci man naññ nañ naññ ba nga xam ne dul ma dul ma for dul ma nit wax lu nekk ci sama kanam la may jàmm jàkkaarloog moom loolu moo tax wax ji demee noonu fi may daan lee nag mooy ñu sant sëriñ Mamour Mbacke bu baax ci kàddu Serigne Makhtar ci ndigalu Serigne Makhtar Diène ci taxawaay bi nga xam ne taxawu na ko ak jëf yu teed yi nga xam ne def na ko waaye di wéy di santaal yi ñëpp Sëriñ Maxtaar daal jàpp ne képp ku fi teew moo ngi lay sant yéen waa daayira Jaalibatul Maraaxib beeg yëpp daanaka sax am na ñoo xam ne jëruñoo sant ndax ñoom seen timmi bopp ci liggéey bi lañ bokk kon nag maa ngi maa ngi maa ngi sant ñëpp di jégalu guddaayu uh, kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu uh, barakallah sëñ Moustapha Lo Eh, doon jël kàddu daara ji eh, waaye tabarakallah mu nekk kàddu yu matale eh, laal na ay tomb yu ferenc ko waaye tabarakallah yu mata laal yal na yàlla barkeel kon suñ saali dañ daa dañuy woo rek tabarakallah soxna may aan tabarakallah mu ñëw jël kàddu parent bi fii allah su rek kii def discours wolof dina ñëw kii def discours wolof bi mën naa ñëw bu soxna may daanelee kàddoom rek moom daa jël la ab discours am euh, soxna may aan euh, tabaarakalla moo nekk noonu euh, xam naa rek ñu tënk ndax day mel ni mu ngi bëgg a guddi te tabaarakalla des na benn wala ñaar incha allah soxna may bisimilah. asalaamaaleykum bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa ñi ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp bokki jullit yi di jiital nuyo bi ak siyaar bi sëriñ Muntaxa Basiir bi ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ci teg sëriñ Maxtaar mii nga xam ne moo fi taxawal daara ji ñu koy jiital ci nuyo bi nag ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di ay jàngalekat yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ci kàddu bi may waxee nag mooy ci kàddu parents d'élèves yi ñi ngi leen di sant ñi nga xam ne ñoom jàngalekat yëpp bàyyiwuñu kenn muy góor di jigéen di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo fi doon jànge di suñu ay doom ñoom it ñi ngi leen di sant ñun ñi seeni waajur ndax amel na leen ak cant bu baax a baax cant gi nga xam ne nag moom laay yëkkati ci turu parents d'élèves yi damay jàpp ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax cant gi ñu wax sëñ Maxtaar ñu war ko koo sant defe naa ne man tuut naa ci ma wax ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay jàngalekat it di jàngal suñu ay doom lottu naa ci suñu cant ñu sant leen ko ndax kenn ku nekk xam na ne daara ji biñ ko taxawalee daaw ñun ñi nekk parents di élèves yi doon fi jànge gis nañ bu baax a baax a baax daara ji ak ni mu jàppe suñu ay doom ak niñ leen jàngale ñu jàngal leen ci njàng moo xam ne njàng mu kawe la waaye njàng mu mucc ayib waaye njàng mu ànd ak diine njàng mu ànd ak yar waaye njàng mu ànd ak teggin kon ñi nga xam ne ñoo leen doon jàngal ñun ameel na leen ak cant bu baax a baax muy képp ku mën a doon rek ak kalaas bu mu nekkoon ñun parents d'élèves yi ñu ngi lay fekk fi nga toog di la jaajëfal waaye di la sant waaye di la ñaanal ci yàlla bépp yéene bi nga am yàlla na la suñ borom yàlla may nga eggale ko sëriñ Muxtaar nag dafa ñëw fii ci diggante saxaw ko ak mbusoobe taxawal fi loo xam ne wax dëgg yàlla dañu naan guleet sëriñ Muxtaar moo ko fi njëkk mu nekk lu yéeme loo xam ne kenn ku nekk gis na ko waaye ñu bare bare bare bare bu ñu defoon ni sëñ Mokhtar yaakaar naa ne kon nëgëri ndaw ñu egg nañ fu ne waaye sëñ Mokhtar nag moom la yàlla baaxee mu ñëw fii taxawal fi loo xam ne ñun parents d'élèves yi mënuñu koo fay parce que suñuy gone dañ fiy jànge suñuy doom jàng-njàng moo xam ne dañuy ñëw duñu fekk ca kër ga daanañ jàng ci yeneen école waaye bi ñu gisee tey ñuy jàng am nañ yar am nañ teggin am nañ am njàng ca dégg nañ ndax jàng li muy am am solo jàngal nit moo gën a am solo ca nit fexe ba mu doon nit loolu ki koy jàngal moo ko mën a def ci moom parce que mën nañoo jàngal nit mais du tax mu nekk nit mais ñoom dañuy jàngal jàngale ki ñuy jàngal nekk nit xale yi ku leen gis xam ne am nañ ak ràññee bu baax a baax waaye dégg nañ tam li nga xam ne def nañ ko ci ñoom te gis nañ ko ndax xale yi kenn koo ci gis tey bu waxee yow da xam ne kii ñu ngi koy saytu bu baax a baax a baax a baax kon sëñ Maxtaar genn ñun parents d'élèves yi dañ laa ameel ak cant ameel la ci yow àq boo xam ne ñun mënul la koo fay waaye dañ lay ñaanal ci barkeb sëñ Bamba wax nga ko léegi ne sëriñ Tuubaa rek moo tax nga di ko def lépp loo ci yóotu mbaa loo ci mébét yàlla na la ko yàlla may te eggaleel la ko jàngalekat yi itam ñu leen di sant waaye di leen ñaanal képp kum ci mën a doon nga xam ne yaa ngi woon ci biir école bi di ànd xale yi ameel nañ la ak cant ameel nañ la ak njukkal waaye di la ñaanal ak ci yàlla jàpp gi ngeen jàpp suñu ndaw yi ak téye gi ngeen ko téye yàlla na leen suñu borom yàlla mottalil yéene bi ba ñu ànd ko nun ñëpp élèves yi tam nag wax dëgg yàlla macha allah ndaw yi muy daara yi nga xam ne tey dañ doon nekk daaray alxuraan di jàng ñu gis fi tey njàng moo xam ne lu yéeme la ci àdduna parce que Touba lañ nekk mais tey gis nañ daara ji tari tari boo xam ne mën naa ne liñ ko gis bëriwul liñ ko déggit bariwul parce que yóbbu nañ suñuy doom ay école yóbbu nañ leen ay daara man mën naa ne musuma ko teg bët te yaakaar naa ne kenn ku nekk xam na ne daara ji at la fi amagul kon tey sëñ Makhtar Diène ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax ci tur parents d'élèves yëpp ñun nag parents d'élèves yi maa ngi leen di ñaan leen ñu itam taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ànd ko ak sëñ Makhtar xaw ma nag fan la dese ci man wala ci yéen ak ku mën a doon nu àndandoo ko waaye ànd nag ak jàngalekat yi waaye ànd ak sëñ Maxtaar Jenn ba daara ji fi ñu ko war a yóbbu ñu yóbbu ko fa fa mu war a yegg ci biir Sénégal gépp ñu eggale ko fa parce que ñu itam nag am nañ ci ab taxawaay waaye war nañ ci am ab gis-gis waaye war nañ ci am ak jàpp bu baax a baax a baax ñu jàppale sëñ Maxtaar waaye ñu jàppale jàngalekat yi waaye ñu jàppale suñu ay doom ñuy ñëw ci daara ji di waxtaan di leen saytu bu baax a baax a baax parce que kenn ku ne jàngalekat ne parents d'élèves mënuñoo bàyyante ndax ñoo war a ànd kon ñu taxawaay bi ñu war a am ci daara ji nan ci gën a taxaw bu baax a baax a baax a baax te gën cee bàyyi xel waaye gën cee góorgóorlu sëñ Mokhtar Dieng ñi ngi lay ñaanal bu baax a baax li ma waxoon ci barkeb sëñ Bamba lépp loo yóot sa daara yi yàlla na ko sëñ Tuubaa defal. amiin amiin euh, jërëjëf soxna May am ci kaddu yu matale yi euh, tabarakalla sëñ Mokhtar moom la euh, ku mata ñaanal la ne ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi te ndax lii mu taxawee daal la rek mooy lislaam sëñ bi kon nga jàllale dañuy woo Serigne Fallou waaw euh, lu jëm ci wàllu sécurité bi fi teew ñi ngi leen di nuyu di leen euh, remercier moo xam muy les forces de l'ordre waa sécurité Lamp Fall Lamp Fall sécurité ñoom ñi ngi wax ne seen adresse mi ngi nekk euh, gaawaan pere kër bàyyi kër Baye Baaxe Mbàkke adresse gaawaan pere kër Baye Baaxe Mbàkke ñu wax ne ñi ngi yëgal ne lépp lu jëm ci wàllu sécurité moo xam meeting la moo xam cérémonie bu mën a doon moo xam marias moo xam ngénte lu mën a doon daal moo xam gardenage kër wala usine yooyu yëpp ku leen soxla na ngi leen woo ci 77 803 80 51. donc ñu wéyal programme bi kon dañu woo dañu woo Serigne Fallou Diop bu ko defee mu ñëw def discours wolof bi Serigne Fallou bismillah. Euh, Euh, Serigne Fallou Mbacké euh, ñu ngi ko sant bu baax a baax euh, di ko gërëm nga xam ni moom daara la fii ci koñ bi am ci taxawaay bu am solo ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm waaye it ñi nga xam ni ñoo yor daayira daayira Jalibatu Maraqib ci njiital sëñ Mor Mati Lo sëñ Mor Mati Diop sëñ Mouhamadou Diop sëñ Mouhamadou Diop waaw ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm ah, ci seen taxawaay ak seen jàpp bu baax a baax ci liggéey bi eh, fii ci liggéey bi ak fa la dëkk te jumaa ja ak ca ak ci lépp rek eh, ci liggéey ci bi ñu ànd moo tax Mouhamadou Diop ñu ngi wax sëñ Mamoor ni ko wax nañ ni daara ji nekk noo yittewoo mbaar te daara jooju ak dana ca kër ga jënn daara la jënn ndox waru faa dugg wala mu leen di laal indil na ko bilaa bi ginnaaw suba insha allah dina ko jox li koy defar bu sooba yàlla insha allah ñu waat lépp laa doon insha allah eh, barakallah loolu nekk effort bu am solo Euh, incha allah ginnaaw suba rek euh, tabarakalla kon loolu day wane ni euh, bu yéexee ci ñoom la ñu fexe ba ndox du ko laal ndax tabarakalla liggéeyu lislaam bi noonu la demee loolu day wane ni kat sëñ bi yëmul rek ci ay daaram waaye lépp lu daara ci gox bi ñu Tuuba loxoom dugg na ci incha allah li tax nag ay ndaw lan ñu sawar lool di ay jàmbaar ñu liggéeyal sëñ Tuuba ci jàng ak jàngale te mu xam ni. lu mu def ci ñoom moom ñoom ñoo koy bokk incha allah ci fayuk Seexuna Seex Ahmadul Xadim eh, jërëjëf kon tarkalla loolu nekk beneen jégg boo xam ni eh, day wone taxawaayu sëñ bi eh, nga xam ni liggéeyu daara moom fu mu ko fekk rek moo xam daal ja fu mu mën a nekk ci Sénégal réew yëpp rek loo xam ne ciy bu baax a baax a baax a baax loolu xam naa oustaz Pape Makoto mii mën na koo seere ak bépp koo xam ne toog nga ci baas bi kon yàlla na yàlla fay ko. yàlla na yàlla guddal aw bu baax a baax a baax a baax a baax eh, ñu ànd ak eh, sëriñ eh, sëñ Fallou waaw ah, sëñ Fallou waaye suñu paree ñu ànd ak waa plateau bi ñu préparé wu incha allah sëñ Fallou bisimilah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kilifa gi ñu dénk saytu wàllum jàng ak formation kilifa gi ñu dénk jàngukaay yi dul jàngukaay nguur gi ci Touba kilifa gi nga xam ne moo sos jàngukaay kër maam xawloo ak daaray daalu quraanul karim ak kilifa gi jiite jàngukaay kër maam xawloo jàngalekat yu teddi soxna si nga xam ne moo jiite way juru dongay yéen kilifa yu teddi te màgg sama mbokk dongay yéen gan ñu tedd ñi lu rëy la ci man lu màgg la ci man ma taxaw ci seen kanam ji xew-xew bu am solo bii ngir jàllale ci seen kanam kàddu gi nga xam ne ak cant rekk moom la feese ak tatagal ak dalal tibbee ko ci suñu xol waaye def ko tamit wuutu suñu mbokk dongay kon maa ngi tàmbalee samay kàddu ci suñu way juri yéen ñi nga xam ne yéen yu njëkk jubanti jubbanti yu njëkk a jubal ak seen kem kàttan ngir dëgëral suñu jàng loolu lu fees la lu ràññeeku la ba mënee su ko wutal njëg loolu tax na maa ngi leen di ñaax ci ngeen wéy ci seen yoon wii ndax loolukat kat daf ñuy dimbale ci dëgëral relation bi dox ci diggante jàngukaay bi ak kër gi waaye mën a sos benn environnement boo xam ne dana tax donga yi gën a kiilu ci li leen tax a jóg ci seenum njàng ak mën a am ay njariñ ci seen ëllëg bu loolu jàllee may fàttali sama mbokk donga yi solos xam-xam ak solos jàng ci dundug nit ki ndax bépp bis boo xam ne def ngeen ko ci jàngukaay bi yéen a ngi fàggu ay xam-xam yu yees ak ay mën-mën yu wuute xam-xam mooy ngàndaay li nga xam ne ci nañ mën a jàmbaarloo ak yàqu-yàqu jamono yi nga xam ne ci nañu dund jamono jii seriñ tuuba qaada lahu llahu maxtaara lahu feddali na ci am mbindam nee na yaa ayyuha in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal Sëriñ Tuubaa nee na yéen waxambaane yi soo leen bañee gàcca na ngeen dem jàngi bala ngeen liggéey bu dee lu jëm ci Sëriñ Muxtaar Jenn yal na ko yàlla sàmm te dama bëgg wane suñu cant ak suñu mbégte ci dugal gi muy dugal loxoom ci wàllum yar ak jàngale ak bay gi muy bay aw waaram ci yar ak jàngale ndax soxna daara joo xam ne mooy nga tàmbalee ci mbaarum zeng ci atum 2006 tuddee ko kërug alquraanul karim mu woyal loolu ci itaab boobu ba tabax jumaa ju mucc ayib tabax jumaa ju mucc ayib muy jumaa joo xam ne diirub koor gépp dañu fi amal fulk aljuma yépp ñu fiy amal ay waxtaani diine yu fasandikoo ak ay ndogu diiru kor gépp dongo yi nga xam ne ñoo watt alxuraan ci daara ji ñooy taxawu la sëriñ maxtaar wayal way ci loolu ba tabax jàngukaay bu yaatu bu taaru bii tuddee ko complexe scolaire kër maam awloo waaye xer gum xer ci xam-xam tax na jagleel na ko ñaari nekk ci këram jàngukaay bi génnee ay njuréef ba àgg tey doon taax mu màgg mu taaru mii di jàngukaay boo xam ne ay jàggoom moo ngi tàmbalee ci atum jàng mi 2023 2024 bokk na ci sembo Sëriñ Maxtaar Jenn wut ay warukaay ngir jàngkat yi ak liggéeykat yi bokk na ci ay sembo seet sos barab bu ñuy jàngalee liggéey jëf yi Sëriñ Maxtaar Jenn jëf nag moo mat a jëm moo jaral rawante balaa ma tëj maa ngi jëmale kàddu cant ci soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikh Abdul Ahad Mbàkke di kilifak jàngukaayu sepkaam ndax jëf yu am solo ak yokkute yoo xam ne def na ko ci yar ak jàngale moom soxna muunatu Mbàkke yamul rekk ci sos jàngukaay waaye dafa jëmbat ak bëgg xam-xam ci doomi Tuubaa yi yàlla na ko yàlla sàmm te fee aw yu amin maa ngi daaneel sama kàddu ci sant suñu jàngalekat yi ak liggéeykat yi jàngukaay bi ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy taxaw di ñu saytu di leen sant yéen suñu gan yu tedd yi jàkkonteeg ngeen jàkkonteeg ci ay coona ngir teewe suñu bis bi ñuy sargal suñu mbokk donga yi mokkal alquran ak suñu mbokk donga yu jiitu ci nacc yu mujj ci jàngukaayu kër maam awaloo donga fa Mouhamadou Fadal moo nekkoon ci kàddu gi di jàngee classe CM1 CM2 majalis aleykum wa wa barakaatu eh, barakallah eh, sëñ Mouhamadou Diop eh, tabarakallah appan ba nga jàllale bisimilah kii nag ngeen di gis sëñ Mouhamadou Fadal bokk na ci xale yi njëkk a mokkal ci alxuraan bokk na ci ñi njëkk a nekk imaam ci jàkka ji macha allah li ma gis fii nag ñoom sëñ imaam Abdoul Khader sëñ Moustapha Lo Mor Diagne am nañ problème ndax bayaan bii moom macha allah danga nu ko defal ci jàkka ja Mor am nga problème sëñ al imam Cheikh Abdoul Khader am nga jafe-jafe xaw ma ne woon man nga wolof yi kon nag na nga góorgóorlu dégg nga te bàyyi yi nga xam ni te macha allah am na yu yuy xew ca léeg-léeg ginnaaw bu béglante amee ba noppi nag am na yuy xew yow fexeel ba bu ci bu ci gis mukk yooyu moom xam nañ ko jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf te moom waajuru jigéen wi dafa dafa bëgg lu baax li tax ñu di ko ñu di ko wax xam nga day am ñoo xam ni dañ leen war di set di leen war dañu am kilifa yoo xam dañuy am ak dogu ci waaye léeg-léeg waajur weneen wa jaar fële moom mi da bokk waajur wu jigéen wi jàmbaar lool lool lool kon na nga topp waajur wi ndax li tax ñuy wax loolu ni sëñ Maxtaar ma ne Basiir noonu la ma ne waaw ni ma ne ñoom xam nañ luy Basiir ak Nasiir koo ci laaj Basiir moom xam na Basiir mooy pomme de terre beeg ñoom ñoom xeeti masrubaat yi ñuy naan yooyu yëpp yooyu yëpp xeet yooyu yëpp ñoom dañ leen koy jox waaye nag nasiir bu jotee nag ñu jaayante ma la li suñu abdulaat loo doon wax léegi macha allah biig ci guddi waxtu wii nii li tax may wax loolu maanaam biig ci guddi bi ñu jógee fii am na ñoo xam ne tëddi nañ waaye am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci nasiir maanaam bañ yeggee am na ñoo xam ne dama doon xeex ak ñoom ci kër gi xeex nañ yëgoo ko al imaam yëgoo xeex bi dem xeex bu metti am na fa ñaari dongo yu nekk fii kenn ki di doo doomi soxna nday wadd ak keneen ku ñëw sëñ Cheikhu naa Mbàkke yëg nañ wax nañ la liñ daj biig lu metti lañ daj waaye li ma ca gën a neex nag daam ko ñuy wax sëriñ Saaliw sunu doom la bi biñ jëflanteeg ñoom ba noppi dugg ci daara ji moom it daa am lu mu def lu metti ñoom it ñu teg ko lu metti waaye bi mu ubbee te loolu deux di du jot na bi ñuy xeex ñun ci daara ji deux heures du jot na kon loolu am na même bu nasi damay wax ni moom da ngay jub ñu daje ci escalier yi doon ay locataire amuñu problème soo jàddee fekk si ma ci bi ma duggee muraaxi bi yor euh, sëñ daara yi tëddagul sëñ Saliou bi nga xam ne sunu doom la dafa dama fekk mu duma ko duma yu metti yu neex lool ma kontaan ci waaye la ma ca gën a yéem daf ko jox ab kaamil ni ko da koy jàng ci guddi gi taxawal ko nga xam ne sëñ Saliou gëm naa ni laata fajar di jot ma tegal ko ci yoo xam ne yu ma ko dig kon nag góorgóorlu leen xam xamante nañ maag yéen ndax man damay jóge Ndakaaru di xees yi ba fii waaw man dama am jot damay ñoom xam nañ ma damay jógee ndakaaru di xeex si ba Touba waaw jël autoroute bi fay 6000 xeex ak yéen delluwaat yéen ndax foofu moom ku fa ne dak ci jub te kenn nee leen seen waajur duñ leen fa indi mukk ngeen di am leneen munta ne lu baax lañ bëgg ci yéen xam nañ ko bu baax a baax a baax lu baax ndax ñaar ñi nga xam ne ñoo génnoon démb dañ doon jëflante ñoom kaddu yi ma leen laaj dama ne leen yéen su ngeen génnoon fi oto laaj laal leen wala ngeen génn fii ñu sàcc leen léegi kuy nekk responsabilité bi ñu ne ma yow may nag bala moo nekk man nag ma jëflantee géen comme xam ngeen ni man lépp sama kaw la war a jëm si loolu mooy dénkaane loolu li sëñ Abdou Lahad wax loolu wax ñu kon ak parents yi dafa metti ñun li ñu yor ci kër gi ga 200 personnes ñoo xam ni li sëñ Abdou wax am na ci ñoo xam ne bu ñu feebaree seen i waajur duñ ko yëg ndax dama ne fii ak li ñu leen di jëndal ci ordonnance matul cinquante mille bu ko seen waajur yëg ñun ñoo ko gàddu mën naa am sax xale bi léeg-léeg mu feebar ci wi fay lu ëpp 15000 yi wax ci ordonnance sa waajur du ko yëg loolu nag su fekkente ni yow doo ko yëg ñun ñu nekk ci sa doom yor ko di ca góorlu lañ ca bëgg lu yomb la kon parents yi li si ñëpp laat wax gën leen cee góorgóorlu bu baax ay ndaw a nga fa yu jàmbaare waaye nag na ngeen xam ni kër ga moom ko fa ne ci njub ngay ne ci xam-xam ngay nekk am tëggaluñ ko doom bàyyi luñ ko soppe soo nekkee boo boo boo góorgóorloo raw ca daara ci mën a mokkal yaay suñu soppee ren nag gis naa fi yeneen xarit yu bees yoo xam ni ñu doon tari fii moom am na fi ñoo xam ne moom foog ñoom ay lëng macha allah li ngeen may wax naan damaa mën a jëlaate am na ñu bees ñoo jël fii ñoo xam ne moom bu ma yegg di leen lëng ñu yëg ca kaw ñu lekk pom jërë ngeen jëf. la sëriñ Maxtaar waaye ci commentaire bu am solo bi yëf yi day baax léeg-léeg commentaire ko ndax commentaire gi mooy génn solo si eh, am na solo lool waaye tabarakallah jàng moom eh, waalam bi anna al ilma saaxbun laa yunaal illa bi kaddi nafsi an xiili waaye suñ maam Cerno suñ Tuubaa joxoon na ko kun kaatiman li durri wal bu'sa tanal xasdan wa taalu jila yaa mutaallimi fatarkalla fal ilmu laa yu'ta liman yaxsha tawaaban rabbuna abdan saburan yulhimu kon daal ñu bàyyi xamee ko noonu léeg-léeg mu neex waaye léeg-léeg mu naqari tabarakalla xam-xam noonu la mel ndax tabarakalla lu baax la te lu baax du yomb yàlla na yàlla barkeel xam naa ko ñu ànd ak rek monsieur Ndim mu ñëw defal no plateau bi incha allah bu ñu paree ànd ak euh, sunu euh, tabaarkalla sunu jàmbaar ji ñu ngi ñëw ci yow. Pape Moussa Pape Moussa mu daal di tëj. Euh, waaye nag bu ñu fàtte ni Mouhamed Idaly mii day jàng. ndax mbokk ñu ngi koy sàkku mu defal noo benn saar rek ci alxuraan ñu barkeeloo ko ndax tabaarkalla macha allah waaw waaw waaw bu ñu paree waaw moom moo ñuy ñaanal. day lool tabaarkalla kon yéen yàlla na yàlla barkeel ci yéen yàlla na yàlla def leen ngeen nekk ay mag def leen mag lislaam te am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa rek kon euh, fu waay toll na def na talal wax amiin ñu ànd ak soxna May Mbakke mu defal nu ñaan euh, soxna Ayda Mbakke mu def ñaanu xatmul Qur'an ndax dañ ko tàmbale woon ci bismillahi rahmaani rahim suñu borom nañu tawfiix ba ñëw ci cappaandoo gi di wax alhamdulilahi rabbil alamin kon na ñëpp nangu ñaan euh, soxna Ayda bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من نسينا آمين وعلمنا منه ما جهلنا آمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا آمين واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة شوية ومردا غير مؤذ ولا فادح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خزيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سيرنا وجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من غواية الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين يا رب xale yépp nañ duggaat ci kër gi incha allah oto yaa ngi leen di xaar pour yóbbu leen incha allah. Mbacke eh, 2006 daara joo xam ne ci menn mbaar la nekkoon daara ji màgg na tey jii ba am jëm ju ràññeeku ci biir eh, Touba ak ci biir Sénégal gi yëpp waaye ami jaaruwaay yoo xam ne moo ko may daraja ju kawe ak taxawaay bu leer si njàngum alxuraan ak njàngum diina ju matale daaru xuraan Touba daaru manaan si njiital Serigne Makhtar Diène ñu ngi daal di samp si njàngaleem alxuraan mu wér moo xam ne da ci daal di jiital cosaanu njàngum daara joo xamante ni bii ni ko mag ñi daan jàngalee noonu la ko daal di amalee ginnaaw bi nga xamante ni bii moom si boppam moo nekkoon jàngalekat bi am ay jàngalekat waaye tamit taqu bu baax ak ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi dem ba daara ji nekk bu am jëmm daal di màgg lool ba waajuru ndongo yu bëree bëri wóolu li nga xam ne moo di njàngale mu sell mi fii amal ci firndeel at mu jot jamono ji daara ji dina mokkaloo ay ndongo yu takku mokkal bu sell ñu ànd ak bind di beqi firndeel na ko seen taxawaay bi nga xam ne dañ koy amal at mu jot ci weeru koor ci naafila yoo xam ne jàng loolu mooy rek xam na aqi lislaam waaye ah, xam na aqi daara ndax ca lay xëy ca lay kontu yal na yàlla barke jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran ci taxawaay bu rafet bi ndax lii rek mooy delloo mbatt ndaala bu nu wote alxuraan ngeen ñëw ànd ak ñun toog ci ba mu jeex yàlla na yàlla euh, sargal ñëpp yàlla na yàlla fay ñëpp euh, jërë jëf jërë ngeen jëf fa jazakumullahu xam naa xayra jasa xam naa kon lépp dañuy wàcc kaddu bi euh, tabarakal dañuy wàcc kaddu bi wàcc kaddu bi daal di bàyyi sunu mbokk yooyu